mu di saku ay ngërëm mu di saku ay dërëm mbate di saku ay përëm njëriñ nga maam aljana man di saku ay ngërëm moo gën di saku ay dërëm mbate di saku ay përëm njëriñ nga maam aljana Bismillahirrahmanirrahim. man maa ngi man di sant yàlla mi di buur ak sant yàlla rek a wóor santaale maam lambal jana bismillaahi jot na tay waxtaan ak yow sa jëf ju rëy li tax ba ñépp fab la way yaa jara maam lambal jana bismillaahi jot na tay waxtaan ak yow sa jëf ju rëy li tax ba ñépp fab la way yaa jara wayi maam lamp aljana jëf ju rafet ju ne ngay roy wax ju rafet ju ne ngay roy maam si Ibrahima Fall lamp ngay roy yaa jara wayi maam lamp aljana bismillahi jot na waxtaan yow sa jëf ju rëy li tax ba ñépp fab la ngoy yaa jara maam lamp aljana xolub cofeel bi ci maan sidir gi yëngooti na tey mada di jog di laway mam lampo lamp aljanna kenn bañu la fanja ga yag fi de wer la lay ñaanal ci barke mam Seex ibrahim afal yag fi de wer la lay ñaanal ci barke mam ibrahim afal ku fi kul darar بسر لا إله إلا لا هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا لا يسر لي عسر كما أهواه بسر لا إله إلا لا على نبي المصطفى يا الله صلي بلا إله إلا لا صلاة محن بسلام الله بسر لا إله إلا لا على نبي المصطفى يا الله سلم لا إله إلا الله